jaajëfal leen bu baax a baax tey di rafetlu seen ànd bi ngeen di farataal di di rafetlu ànd bi ngeen di farataal di ànd ak rajo Rewmi FM vendredi nag bu waxtu wi jote ngeen di baaxu di teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS euh, santé am mbégte ak banneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di doyen Abdoulaye ndaw moom doyen Abdoulaye ndaw mu nekk président d'honneur euh, bu fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle doyen ne ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye tamit euh, di rafetlu nangu bi nga nangu vraiment wuy suñu fii ci ci suñu émission bi di di santé. asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna Fatou soxna Fatou mu ngi lay nuyu di la ziar di la balu di di nuyu euh, waa rajo bi yëpp di di di tamit auditeurs yi ak auditrices su Rewmi FM. Mm-hmm. Euh, di leen jaale tamati suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi jóge eh, si fan yi ak ñeen kilifa diine si jógoon si fan yële passé tamit ñu ngi ko jàll di ñaan yàlla suñu borom dalal leen si àjjana firdawsi Euh, di ko jaale umma islamique bi yëpp comme ni nga ko waxee doyen euh, Sénégal mu ñàkk ñàkkati encore une fois ndax euh, ñaari kilifa diine yu mag ñoom ñoo fi bàyyeeku xanaa rek di ñaan yàlla taas ñu ki seen barke. ñu daal di tàmbalee rek waxtaan wi waxal li nga xamante ne moom moo di tradipraticien dañu dégg tradipraticien tradipraticien te jii moo boobu lan la wund doyen. tur woowu nga xam ne moom la ñuy wax fajkatu cosaan yi muy tradipraticien nga xam ne da di terme boo xam ne OMS moo ko moo ko joxe woon maa ne dañ dem ba jëmmi jamono ñu soppi tur woowu tudd ko les praticiens de la médecine traditionnelle mhm. les praticiens de la médecine traditionnelle mooy terme bi nga xam ne moom lañ mujj utiliser moom lañ mujj utiliser actuellement si li ñuy tuddee fajkatu cosaan yi mhm. Euh, mooy ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo xam-xam bi nga xam ne moom la fi maam bàyyi woon mu xam-xam bi jóge si si gàncax wa allah wa ilaa mu jóge si alxuraan waa ilaa mu jóge si yeneen aspect muy aspect ésotérique ni ñu koy waxee mm-hmm. mu jóge si si si yeneen yeneen jumtukaay mm-hmm. si moo xam yii dafa jóge si géej yii dafa jóge si mala wala liy jóge dafa jóge si si si si si si li ko waxee rek minéral. Uh-huh. wala li liy jóge si yeneen xeetu xam-xam pratique yoo xam ne si cosaan daan nañ ko def. Uh-huh. pour indi ay saafara si tawat yi nga xam ne moo daan dal doomu aadama. Uh-huh. nga xam ne maam ñoo ko daan jëfandikoo di ko jokkalante di ko jokkalante di ko jokkalante ba ñu ba mu yegg si fii. loolu moom la ñu wax ne mooy xam-xamu cosaan. lépp loo xam ne rek ne jumtukaay yoo xam ne ne nekkoon na suñu seen loxo. moo xam si mu jóge si environnement bi comme ni ma ko waxee léegi moo nekk jat la moo nekk si alxuraan la moo nekk si mën doon mm-hmm. loolu yëpp maanaam yooyu yëpp nga xam ne dañ ko doon jëfandikoo moom lañ leen wax faju cosaan mm-hmm. Mm-hmm. mu mel ni faju josaan yàgg na eh, ci mim réew ñu buggoon rek eh, laata ñuy gën a xuus ci li nga xamante ne moom moo di tradithérapeute yi ak seen i particularité ñëw rek eh, wax ci yow mi nga xamante ne da ngay yëngatu ci wàll woowu xam naa ay at ngi nii tey ji doyen Abdoulaye ndaw lan moo expliqué nga yëngatu ci wàll woowu da ko jàng da nga ko doon lan mooy sa processus ba tey ji nga nekk kàngam ci wàll wu ni mel waaw loolu mën naa wax ne dañ ko dama ko dama ko jàng dama ko doon. Mm-hmm. parce que loolu doon tamit da koy jàng soo ko jàngal doo ko man sa kan ko jege jële dafa la koy jàngal. Mm-hmm. mën naa ko man dama ko doon samay waajur nga xam ne yàlla ko mayoon xam-xam xam-xamu faj ak yeneen xam-xam moom ko moom si laa ko jëlee. Mm-hmm. dama ko jàngal nag ba nga xam ne ba ma tey si di si mën a yëngatu. Mm. dafa euh, jàng bi ban ban ban ban ban culture scolaire nga jàng tey ba ba ba mën a exercer d'autant plus que am nga benn plus ndax non seulement donc doon waaye tamit jàng nga ko ban ban ban ban branche la la man nag euh, dama jàng nasaraan jàng naa tubaab dem naa ba terminal euh, mais dama tamit dama jàng alxuraan dama dama jàng alxuraan dama jàng arab def naa def naa yooyu yooyu yooyu xam-xamu jàng. Mm-hmm. sama papa tamit jàngal ma tamit mu mujj jàngal alxuraan si. pour mm-hmm. mën a mottali si yenn xam-xam si wàllu alxuraan. a mm-hmm. ko moo ko jàngal. dafa jàngal ma si wàllu wàllu faj. daanaka muy génn àddina. donc lépp lu ma xam war a ko mën a xam te mu nekkoon si euh, si yàlla def na ma jox jox na ma ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ci wàllu faj woowu lan la def la doon wan naka la ñuy defee ay produits wala da ngeen doon ànd di uti ay produits ay plante ba nga mën a mélanger di faj. waaw daf ma daan jàngal daf daan jàngal su fekkee ne wàllu jat la daf ma daan jàngal jat yi su fekkee wàllu si wàllu alxuraan daf ma daan jàngal ni leen si aay yi ak alxuraan dañu ko jëfandikoo ba mu sell man man see man te faju mm-hmm. dama daan toog nekk ak moom di ko liggéeyal di ko liggéey si garab yi. di ko liggéey mhm. si garab xam nga nag parce que dama wax naa ne ne dama jàng français. Mhm. mais xam nga booy jàng français. Mhm. diir bi nga war a toog sa wetu papa doo ko doo ko doo ko si toog. parce que jóge primaire dem si dem sixième seconde dem ba terminal xam nga ne dafa am jamono jooy xam ne si ngay toog ak moom. jamono jooy mooy jamono vacances ak jamono fête. si ngay toog ak moom si tool yi di nekk ak moom si njàng mi. di gis waaw di forfe si xam-xam bi mm-hmm. moom mu sàkk woon ko tamit xam naa ne pour jox ma ko mm-hmm. waaw xam naa ne si coobare boobu moom la bëggoon xam-xam boobu ma dese ko bu fii balaa muy génn àddina parce que dama doon liggéey euh, dama doon liggéey bi ma jógee si njàng français bi euh, terminal jóge fa dama liggéey dama nekkoon Soleva euh, jóge fa nekkoon Sonacos di liggéey mais moo mujj bàyyi liggéey ba ni ma naa ñibbisi mm-hmm. laa bàyyi liggéey bi ma doon liggéey professionnel bi ma def ñibbi si kër ga nekk ak moom lu mat ñetti at si la génne àddina ñetti at yooyu ma nekkoon si moom laa doon perfectionné wu fekk fekkoon moom mag la woon nekkoon na mag mais si bëri nag maa ko doon liggéeyal si wàllu bind maa ko defal si wàllu defal garab yi maa defal si wàllu yu bëri ma nekkoon adduwaat ba ni mu ni mu génne génne génne àddina. Euh, ndax ci jamono jooju yomboon na euh, ñu ngi lay tàggat euh, ci benn fànn alors que de l'autre côté jàng nga yaa ngi doon liggéey amaana ma sax des fois pour nga allié woon ñaar yooyu certainement c'était pas facile ci jamono jooju naka nga doon organiser ak naa ko dundee. waaw nag. daanaka sax amutoon organisation. sama jàng diir bi may nekk ak moom rek si lay jàngee. diir bi ma nekk moom rek si si si coobare boppam si la may transmettre li ma bëgg a transmettre. si ci ni mu ko daan ni mu ko si ay façon ni mu ko daan trans euh, mm-hmm. ba demoon na sax ne ba may jàng sax ba may jàng sax euh, ma euh, nekkee e- à l'école am na yu bëri sax xamoon naa ko mais daaw ma ko jëfee waaw exerce ko su ma di jamat ja xamuñu woon tamati ne am na xam naa maa ngi si base di jàng ñu si bay bàyyi woon ñu si suñu xel parce que sama papa dama ko defal distect discrètement la ko doon la ko doon la ko doon defee mais si famille bi suñu bëri jot xamoon nañu ne si kii la xam-xam yi daan la ko nar a bàyyeel. Mhm. ñu bëri jàpp euh, jàppoon. am na ñu ko waaw waaw am na am na ñoo xam ne njortoon nañ ko am na xam ne njortoon nañ ne mën na jël léegi am na xam ne njortuñu ko woon tamit. Euh, parce que c'est distribué mais si dernière année yi nga xam ne moom la moom la desoon si suuf. Ah. si bëri na si lay doon leer si ñu bëri euh, euh, si si bëri waxtaan bi bi mu génnee àddina am na ay ay ay at yoo xam ne maa toogoon fu ñu mujj nag di jàngal xale yi foofu si wàllu arxon ak wàllu arab Euh, Abdoulaye ndaw nga nekk président d'honneur bu fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle mu nekk association boo xamante ne daanaka li muy ëmb ci ay doomu aadama euh, ci ay information ëpp na quatre mille euh, donc ñoo xamante ne dañuy yëngatu ci wàllum médecine traditionnelle tey jii nii seen association bi naka la organisé woo nees la def ba xam ne kii day yëngatu ci wàllum feju cosaan donc remplir na critère militaires ba war na mën a bokk ci suñu kuréel bi comment que vous vous êtes à l'interne waaw xam nga fédération bi euh, dafa regrouper ay association la mm-hmm. dafa am ay association yoo xam ne ñoo boot ay fàtt ko jot ci sosaan bu ñu jëmm jamono association yu bëri woon na Sénégal euh, si si ministère de la santé si nga xam ne mooy mooy euh, ay recommandations OMS pour ñu organiser les traits de patients ba ñu mën a jàppale eh, état yi si ñu mën a asseoir une politique de médecine traditionnelle. Mhm. si yooyu moo taxoon euh, bi association yu bëri Sénégal ministère ne dañu leen war a dañu war a organiser fakkatu cosaan yi. Mhm. dañu war a organiser ñu mbokk si benn ent nekk benn ent si la ñu déclenché bi de préparation pour aller vers la mise en place. d'une fédération Sénégal des praticiens de la médecine danoon def nañ ko ay ñu wat ñetti at mhm. di ko waxtaane di ko doxee su na lañ koy tax dañ koy taxee ba yàlla sottal ko seen regroupé association yi ñoo xam ne légalement reconnu par l'état mhm. euh, état mu nekkoon 64 associations dans dans dans dans sa ndorteel sa ndorteel sa ndorteel ba si ndorteel ba si lañ euh, si lañ ko si lañ ko si lañ defee si lañ ko defee yaakaar naa ne boobaak léegi mu ngi war a def. war nañu def si ñu ngi war sept ans wala huit ans. Mhm. de de d' existence. Mhm. existence parce que de def naa cinq mandats. ma mhm. defee sama sa mandat laa jox la ngay ñaan gaw su Samb mu jiitu fédération bi mais ñoo taxaw comme président honoraire. de cette de cette association. boobu lañ taxawale fédération bi. c' était pour que fédération bi mën a jàppale ministère de la santé ñu man a collaborer foofu pour pour ñu liggéey ensemble pour mën a mën a intégrer médecine traditionnelle dans les systèmes de santé loolu moo nekkoon moo nekkoon objectif pour en attendant d'aller vers la création euh, d'un conseil des traditionnels qui synonyme de l'ordre des tradis parce que si objectif boobu euh, si yoon woowu lañ nekkoon mhm. ba nga xam ne critères yi bon mun ñu woon wax déedéet critères yi parce que ay association la ne reconnaît pas les, les, les, les terres dépassées. Vraiment, mais les, associations. sont les associations qui fédèrent. chaque association a ses critères de, de d'intégration de ses membres dans la structure ku nekk yaa xam ne respect éthique bi il faut que cette tradition soit reconnue par la communauté par la communauté que war nañ ko fad euh, association war nañu fexe ba nga xam ne kii nga xam ne mooy bokk si si si fédération nekk fajkatu cosaan la te fa muy nekk tam xam nañu tamati fajkatu cosaan la. justement foofu laa doon jëm euh, ndax ndax ndax ndax ndax yomboon na ndax euh, c'est am na ñoo xamante ne doon nañ ko boole kook ñoo xamante ne jàng nañ ko am na ñoo xamante ne certainement. dañ ko ñëw nii rek di ko defaale ndax c'était facile au début ngeen bëgg ngeen ngeen def la différence entre ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllu woowu surtout ko euh, dañu xaw a bari. wax fi mu nekk nii fi ñu toll nii yombul. Uh-huh. fi mu nekk nii yombul pour mën a def la différence du yombul parce que dañ toll si jamono joo xam ne kenn ku nekk mën su la neexee nga defarkatu ci sànla te di secteur boo xam ne actuellement dafa ubbeeku euh, ba nga xam ne. ku jóg rek su la neexee nga ne fajkatu cosaan laa mhm. te kenn du si man dara nekk sa koñ nekk sa gox nekk sa quartier nekk fa la neex di di fa faje mhm. kooku kenn mënu ko eh, kenn mënu ko tere kenn kenn mënu ko kenn mënu kenn mënu ko interdire ki kenn mhm. loolu tax parce que daf nekk secteur boo xam ne ñu bëri yaakaar ni daraa nga fa parce que xam ne gis nañu population bi ñu ngi jublu si médecine di faju donc la nga xam ne moom la ko maam yi defee woon mu nekk koo nekk loolu profession da nga naan béykat di faj nekk menuisier di faj nekk éleveur di faj. Mhm. léegi def ñu koon profession mais léegi dañ ko def profession. dañ ko def féete profession am waaw léegi dañ dem wutu def ko def ko une activité professionnelle ba nga xam ni ku nekk dugg na mhm. loolu mu nekk nag ku joxoo. waaw ah, mu nekk ko joxo mu nekk fi mu nekk actuellement la le secteur de la médecine traditionnelle mën nañu wax ne sabargu sabargu sabargu tas la kenn ku nekk day tëgg fu la neexee ah, waxee nu la neexee doxee nu la neexee Euh, floraison boobu sax euh, moo tax euh, ba xam naa yéen kuréel bu ngeen di bokk ngeen di ku ñu amal ci ay assainissement maanaam dindi di ci bon di ci baax ñu ñu ñu sauvegarder ko lu ko mooy rek médecine traditionnelle boo deful ndànk mën na nekk lu ñu duppee danger jëm ci santé publique. oui oui am na noo xam ne fi mu nekk nii bu ñu si taxawul day nekk un problème de santé publique. Mhm. c'est là que que la population duñu duñu sécuriser wu. day nekk day nekk un problème de véritablement euh, véritablement benn benn benn secteur boo xam ne li muy lor day ëpp li muy li muy def li muy defar. Mm-hmm. kon te loolu mooy constat bi actuellement. parce que gis nañu charlatanisme bi ni mu doore gis na nit ñi fi mu nekk nii ñëpp ngi si dugg ñii dañuy dóor ay marto ñii ngi def luy ko fekk ku nekk ne maa man te loolu c'est un danger. Mm-hmm. bon loolu moom c'est un constat boo xam ne moo am. Mm-hmm. Euh, soxna Fatou léegi. nan lañ ko mën a nan lañ ko mën a a nañ ko mën a saafara mhm. mooy lenn que puisque état bi dafa bëggoon dafa bëgg intégrer la médecine traditionnelle euh, dans les systèmes de santé donc il va falloir donc qu'on qu'on organise ce secteur qu'on organise secteur lui doter d'un cadre juridique de, de reconnaissance des acteurs mm -hmm. mais aussi de la préparation médicamenteuse des, des mhm. donc il faut que te xam nga ne Eh, te xam nga ne lool pour mu am il faut un projet de loi loolu moo waraloon que dans si si politique état bi ñu defal un ñu euh, un projet de loi boo xam ne si bu ñu adopté ko euh, le président de la République adopté woon ko yóbbu ko assemblée nationale mais actuellement projet de loi boobu moo mën a génn pour ñu mën a rationaliser organisé ko réglementé ko parce que xam nga loi bu nekk interdit la ak acceptation. lii dañ koy tere lii dañ ko lii dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy nangu li ñuy tere boo ko defee am loola si daal. Mhm. ah lii nga xam ne dañ ko nangu tamit nii nga ko war a nii nga ko war a doxalee pour ñu pour ñu nangu. Mhm. loolu bu ñu ko defoon fi mu nekk nii je pense mais que lu bëgg à quatre-vingt-dix pour cent ah, si li nga xam ne moom lañ ci si message dina dina sa dina kon publicité bi ngay gis nga xam ne c'est une publicité tapageuse ñëpp xam nañ ko dans les médias dans les rajo avec la complicité aussi. il faut le dire des, des, des, des médias. Mm-hmm. Euh, il faut il faut le dire mm-hmm. parce que ñoom it y a l' aspect mm-hmm. te ñi nga xam ne ñooy tradipassé tamit y a l' ñoo si jublu. Euh, ci ci ci wàllu woowu sax euh, doyen doguma la doon ngeen sàkku waa CNRA di sévir comme ni ñuy sévir yenn publicité yi yu ci mel ni ay xeesal wenn yenn produit yoo xamante ne CNRA jàpp nañ ne participer wu ñu ci rataxal diggante wala dañuy divertir askan wi foofu. tamit euh, fan ngeen ci toll. waaw foofu man defoon naa si defoon naa si euh, defoon naa si benn article. ñu génnoon ko bi nga xam ne seen laa génnoon di attaqué la publicité di xeesal si état bi. Mhm. jógoon naa si autant que ni ñu am ni ñu ni ñu yenn yenn produits yi. dans, dans la publicité de ces yi noonu la war a interdire tamit la publicité la médecine traditionnelle parce que vous vous rappelez qu'il y a la loi 83 mhm. du 28 janvier 1983 relative à, à, à la publicité en matière de santé mhm. kooku je pense bien que su fi si appui woon je pense bien ñu ngi a interdire la publicité dans les parce que xam ngeen ne publicité jaayu la te kuy jaayu loolu neex ngay wax sa produit pour nit ñi gëm ko mhm. publicité ah. mensongère ah. si wàllu faj ñu siy def yenn yi parce que nag faj da da di xam dafay touché wér-gu-yaram doomu aadama kon dafa war a am maandu am sellal. Mhm. am seragal yàlla ko siy nekk. Mhm. léegi na fekkee ne wutu xaalis moo la si moo la si dugal loolu da toog seerate mhm. mais donc dafa am loi yoo xam ne dañ ko war a teg nag pour pour mën a réglementer pour mën a réglementer loolu ñu mën a assainir. le secteur mu mën a nekk loo xam ne dafay jëriñ askan loolu maa ngi si ñu ngi si def naa si acte sénégal interpellé nañ ko def nañ si ay commission intervenir si la justice dans les temps amul luñ si deful même les patrons de pétrole sax avec ministère de la santé invité wu nañu benn benn atelier pour ñu jàppale ñu si si si si si loolu mais gis nga gën di day gën di day di yokk day gën di donc loi rek moo si mën dara kenn mënu si dara fi mu nekk nii il faut que la loi di ñëw ñu bu dul projet sax mais loi bi fi nekk actuellement di interdit la publicité mën nañu ko utiliser mën nañu ko am laaj ah, ah, mën nañu ko daal loolu mais nag lañ ko bàyyi mu def noonu ñu bàyyi ko noonu c'est ça ay année boobu léegi mu mel ni avancé wul pour euh, demuñu dikkuñu mu mel ni euh, ci côté autorité yi dafa am euh, benn benn blocage boo ñu doon wax blocage bi lan nga jàpp ne moom moo expliqué tey loi bi boobu ba léegi taw Eva Marie Coll Seck xam naa def ngeen ci ay atelier def ci ay séminaire dajale nañ tradipraticiens yi nga xamante ne ils sont euh, légalement reconnus mais terewul boobu ba léegi daanaka bu ñu munee wax fourage daanu ko dem amul lenn lu concret lu ci jóg blocage boobu euh, ndaw lan nga jàpp ne ma koy expliqué. non blocage boobu sax man damay posé question bi nga posé question sax laay posé question lan moo ko man dama jaaxal parce que. Euh, boo seetloo processus bi nga xam ne si lañ si si lañ si la jaar le projet de loi. Mhm. je pense bien que depuis 94 ci les années 94 86 le processus bi décolle parce que on se rappelle bien bien que de. de le conseil interministériel bi nga xam ne bon temps bu Abdou Diouf moo fi nekkoon. Mm-hmm. moo moo yor benn circulaire benn. benn waaw benn circulaire pour que wax euh, ministère de la santé ñu jéem a fexe nan la intégrer médecine traditionnelle dans le dans le a réglementer la médecine foofu la jógee déjà mm-hmm. foofu la jógee yenn ateliers foofu la yëpp foofu la départ ay rencontre am ñu élaborer des projets de loi. Mm-hmm. projet de loi bi dem assemblée naan defar nañ temps Abdou Diouf ba si Ablaye Wade ba si Marek Seck mhm. ay retouche ki retouche ki retouche mhm. di ko defaat di ko defaat ba si si en tant que Marek Marek Seck lañ mhm. ko lañ kon nga xam ne yàgg na presque mën nañu wax ne dans vingt cinq ans et quelques ñu ngi si di def bu dem asa mu nekk dem assemblée nationale ma nga fa lu ma ñeenti at je pense nga nga fa depuis loolu mi nga fa tëdd kon duñ mën a xam lan moo ko lan moo ko lan moo ko lan moo war ko war a waral man li ma si bëgg a wax léegi li ma si mën a wax ñu nee nañu yaa des lobbies pharmaceutiques ñii ñaa leen léegi léegi léegi les ordres de médecins les ordres de pharmaciens les médecins ñoo ñoo si taxaw ñoo bëggul mu nekk ñu de mais je pense que y a la volonté état mu amul volonté moom moo initié projet bi du ñun c'est moo initié projet pour être en en phase avec les avec les les les kii internationales kon les normes kon bu defee ba bu demee ba def projet de loi ñu tëral ko asama kon damay wax ne état bi moo amul volonté parce que am na loi yu bëri yu fi xam ne jaar nañu fi te gënuñu gënuñoo am importance la loi sur l'exercice de la médecine traditionnelle loi yu bëri jaar na fi. Mhm. te gënuñoo am importance euh, euh, loi médecine traditionnelle. Mhm. te loi jaar nañ fa. puisque ministère de la santé ño ño ñoo ño initié projet de loi ñu ànd si ñu d'accord si président de la république adopté ko yóbbu ko assemblée nationale te xam nañu assemblée la tey jii président de la su bi ñu wote ko wote nañ ko suba. Mm-hmm. ah wote nañ ko suba xam nañu ba léegi y a quelque chose. tu mm-hmm. me poses la question man ba léegi man ni ngay posé question bi ne laay posé mm-hmm. ndax loolu du favoriser li ñuy duppee business jëm ci li nga xamante ne moom moo di eh, eh, tradipraticiens yi ñu yëngatu ci wàllum euh, fajum cosaan ak aada ndax du leen gën a yokk dooleel. waaw moo la gën a yokk daal parce que am leen lu la téye amul kenn lu leen amul lu ku nekk la si fekk kon nag fu nekk nii li ñuy yëpp nañ jooytu loi bi ñu voté ko ñu réglementé réglementé la médecine traditionnelle. Mm-hmm. loolu rek mooy mooy ñu ko def wala fi nekk bi interdit la médecine brandir ko pour mën a arrêter la publicité parce que publicité bi fi mu nekk nii bokk na si li gën a yàq médecine. c'est c'est clair parce que faju cosaan éthique la dafa war a jëriñ ñu warta warta lore waaw te puisque daf ñu ko bëgg dañ ko lore bu ñu ko di bàyyee nii day crédibilité day yàq crédibilité secteur bi ñi day yàq tamit ñi nga xam ne tamit ne yaa mënoon nañu dañ leen di boole si ñu mënul te xam nañ ne actuellement dafa xam lu xew comme wax naa la ko léegi nee naa la kenn ku nekk soo neexee nga nekk fekkatu cosaan parce que ñu si bëri dañuy jànguñu ko wala doonuñu ko wala ñu ko mais dañuy informé wu sur le net sur le résultat de recherches fondamentales. Mm-hmm. si la ñuy informé wu. su la sukkandiku di xool. soit que daal ñu nekk si biir téere soit que nekk si biir université si biir internet la ñu internet. moo xam moo xam légumes yi la moo xam fruits yi la moo les plantes asiatiques moo loo xam les plantes ak yooyu la ñuy exploité xam moom la ñu des génne ko di ko def ay composition de di ko jëm. Mm-hmm. fa cosaan mooy xam-xam bi fi maam bàyyi woon doo ko yokk doo ko wàññi muy jëriñ yaa mille ans wala yaa deux mille ans muy jëriñ ba léegi muy jëriñ loolu mooy xam-xamu cosaan te li ma la wax leen de xam-xam bi ñi nga xam ne moom la fajkat yi joxe si recette yi nga xam moom la ñu joxe si télévision yeeg si rajo yi naan garab sàngam baax na si garab sàngam du seen xam-xam. fuñ du seen xam-xam. yu ñuy fortaatu la kenn ku ne fajkat bu nekk sa xam-xam doo ko joxee si télévision. da nga koy da eh, koy protéger da koy protéger amul benn borom xam-xam fajkat buy jël xam-xamam di ko joxee si télévision wala rajo li ñu joxe si télévision yëpp mooy li ñuy fortaatu c'est pas du sérieux li ñu fottaat yoo xam nga ko xam kenn mën na ko xam yow boo boo léegi internet bi léegi Google dem introsé plante mu jox la plante yi mais en général dañ lay wax ne les plantes c' est antidécisif mais duñ la wax exactement nan ko utiliser. Mm-hmm. parce que la matière première plante faju cosaan xam garabu cosaan dafa am processus bu ñuy jaar ni garabu moo leen di amee processus la matière première dafa am processus de fabrication bu jaar ba nekk un produit fini. te en général li nga xam moom la ñu joxe yëpp du du matière première mais du produit fini yow nga jël rek c' est pourquoi gis nga Sénégal ñu bëri dañuy automédiqué wu si les plantes. tout à fait. yëpp audi audi automédication bi si plante bi dafa jéggi dayoo garab sàngam baax na rek nga dem di wuti jiwoo yaa ngi koy wut c'est koy jaay yoo xamoon garab bi c'est koy jaay xamoon ba garab la moom la jox yan condition la la denc garab bi. ndax garab bi léegi am na njariñ wala amatul njariñ parce que bu jëkk faj faju saan mag ñi àll bi da leen jege woon àll bi moo leen jege woon dañ daan génn dugg si àll bi wutal seen bopp seen garab bi ñu bëgg ak nañ ko war defaree ak nañ ko war ñëw ko seen bopp mais léegi àll bi daf ñoo sooy bi yow boo nekkee fajar bëgg a wut plante doo ko wuti ji dafa am ku la koy wutali jil wala dem si kay koy jaay ji acteur da di da di secteur boo xam ne secteur commercial la mhm. ñiy wuti garab ak ñi koy ñi koy jaay ñi koy def takk di ko def takk di ko si taabal bokkuñu kon yow mi nga xam ne si da dem takk ñu la benn takk rek nga fëgg ñëw xooj daal di naan loolu danger la parce que plante bu nekk dafa am réalité chaque plante dafa am nekk si biir plante bi toxicité am na toxicité am ñoo xam ne lii bañ am ñoo am ñoo xam ne am bëgguñu composition boole bi boole bi boole bi day am interaction yooyu danga koy xam mag ñi dañoo xamoon loolu ba bu ñu daan defar ñu daan defar garab moo xam moo jóge si gàncax dañ faral liggéey ni ñu ko waree liggéeyee la xam ne ne day gaañee dañ koy dindi la xam ne daf say dañ ko fay bàyyi joxe ko dañ ko war a joxe ba ah si niñ koy naanee yëpp dañ ko war a def c'est un danger tax ñu interpellé ñu wax interpellé état bi mu si parce que ñun population bi lañuy lañuy lañuy lañuy xalaatal parce que bu loolu ñun sans la loi dañuy faj sans la loi fajkat ci saan dañuy faj parce que culture la suñu patrimoine culturel la bi nit ñi gëm nañ ko bu laa gën ko ku nekk day toog si faj mm-hmm. te kenn duñu aaye mm-hmm. waaw kon suñ dee wax pour ko la wér c'est pour que ñu crédibiliser la médecine de secteur protéger les populations mm-hmm. xam-xam bi ñu téye ko mu mën a jariñ ak euh, askan wi ñu préserver askan wi loolu moo tax bëgg xam-xam bi du dem ba mën a écarter ñu bëri bëri bëri bu ñu mën a écarter parce que projet de loi bi xam nga loi bi bu génnoon fi mu nekk nii dañu mën a appliquer le document de politique nationale. dañ ko mën y a le document de politique nationale actuellement. mais mënuñu ko appeler parce que loi bato. waaw day kon barrière yi nga xam ne moo waroon a tax. médecine traditionnelle am njariñ askan wi amal njariñ ñi koy détenteur yi duñ ko mën a duñ ko mën a def benn ci production des médicaments benn ci collaboration bi même si la prévention de, de, de, de, de ces en voie de disparition hein? benn sur l'organisation des tas de parcelles yooyu yëpp projet yooyu yëpp il faut que projet bi génn document de politique nationale ñu mën ko appeler parce que dans le document de politique nationale dafa am huit points yoo xam ne yi gën a am solo yoo xam ne moo mën a tax médecine traditionnelle amal njëriñ askan wi. d' abord si gën a am solo mooy il faut que am un cadre réglementaire loi nangu faju cosaan mhm. ak defar garab mhm. beneen bi il faut que fajkati cosaan ñu organiser leen il faut ñu ñu recenser leen mhm. cartographie bi sax il faut ñu il faut ñu recenser leen pour mën a taxaw benn cartographie d'état d'état parce mën leen a organiser ba nekk des causes parce dans le projet de loi il a le conseil l'ordre de Pastef lu ñu wax conseil de Pastef lañ ko wax parce que dañuy dënn terme bi ordre bi mais le conseil d'état de Pastef lañ wax bu war nañu ko mën a taxawal ñu xam kii kii beneen bi mooy il faut que renforcement des capacités de Pastef sur les paquets de services promotion prévention mm-hmm. ak ah, loolu il faut que mu mën beneen bi mooy la protection du savoir des connaissances médicales il faut que xam-xamu xam-xamu euh, fajkatu cosaan ni xam-xam bi fi nekk il faut ñu aar ba mu des fi protéger ko ba xam-xam bi du dem mu des fi mu jëriñ askan wi mu demu daa doo tuteur il faut que ñu def les mécanismes des mécanismes de médecine de prévention et de euh, ñu koy xeeti et de protection du savoir des temps passés il faut que def il faut aussi la prévention des espèces végétales qui sont en voie de disparition beneen point bi mooy que ne il faut la collaboration de deux secteurs mm-hmm. les acteurs des deux la médecine moderne et la médecine actuellement collaboration bi mënta nekk fenn rek la mën a nekk mooy bi actuellement bi am mooy que la collaboration pour mettre quelque chose mais la c'est loin de suffire li gën am solo mooy la collaboration si le recours le si le de référence ma mën a envoyé malade docteur bi mën ma envoyé malade collaboration en partenariat ah waaw mooy dëkk entre les instituts ak euh, clinique yi ak structure de santé loolu ñuy wax recours référence mhm. di réfé- di recourir des patients la avant ñu yónni ma ab mhm. te loolu mënul nekk mhm. beneen bi mooy la collaboration sur la recherche scientifique ñu mën a collaborer ba na recherche suñu xam-xam ak ñoom ñu collaborer ak seen xam-xam bi am si wàllu wàllu science ñu mën a defar ay garab pour que mën a am actuellement. Hmm. nekkul loo tax actuellement si pandémie actuellement gis nga le le projet le euh, le de cette année. la journée africaine de médecine traditionnelle nga xam ne OMS moo ko décrété le 31 août de chaque année. dañu war a célébrer la journée africaine de médecine traditionnelle le thème de cette année c' la contribution de la médecine traditionnelle sur le sur le coronavirus. mais quelle quelle contribution la ñu mën a contribuer. ñun li ñu a a li ñu si mën a ko fi mooy que mettre en dispo mettre joxe ay euh, la disponibilité de médicaments traditionnels pour pour pour soigner. Mm-hmm. également loolu la ñu mën a contribuer mais loolu pour nga mën a contribuer il faut les recherches sur les plantes. Euh, euh, justement ci ci ci wàllu woowu ah, wax nga ko wax nga wax nga wax nga fi ngeen war a jaar yëpp mais ndax jàppaloo ne le fait que seen profession bi ñu infiltrer ko. ku nekk di autoproclamer que man euh, kàngam laa ci ci ci ci ci ci fànn bi ma nekk dañ koy gis ndax loolu aussi tamit du tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy le les médecins tout à l'heure wax nga ko fi partenariat bi entre les pharmaciens ak les médecins bi blocage bi ndax le fait que de un ñu infiltrer seen pro euh, seen seen seen seen profession bi jur ko ak de deux aussi tamit euh, dañ leen di farataal di di di reprocher scientifiquement parlant peut-être boo jëlee paracétamol wala doliprane dinañ la wax seen composition bi lii la am na effet secondaire contrairement ak ñenn ñi nga xamante ne certainement bu ñu defee seen yenn mélange pour ñu pour ñu rassurer nit ki day compliqué ndax jàppaloo ne loolu tamit mën na nekk blocage ba médecine traditionnelle ak médecine moderne pour ñu liggéey euh, l'idée est là les projets sont la mais pour ñu concrétiser ko y a euh, plus que blocage qu'on ne l'imagine. waaw ah, day am blocage mooy que ne manque de confiance mooy am. manque de confiance des ressources c'est propre les acteurs de médecine moderne bi dañu am confiance sur la pratique des médecins des des tradipraticiens tradipraticiens aussi dañu naan ñee dañu leen xeeb di gëmuñu médecine traditionnelle ah wala dañoo dañoo dañoo ah, dañoo ay dañuy lañu si ñun. bon comme ça tout ça terme lu nekk dañ ko soxla bon mais li ko andi mooy li ko andi mooy comme li nga wax infiltration moo ko andi. ñàkk ko ñàkk ko infiltration bi. moo tax ak chantage bi ni mu bëree ak secteur bi ni ma infecté woo bokk na si nga xam tamit ñoom dañuy dañuy dañuy réticent mais aussi beneen bi dafa am beneen résistance boo xam tamit moo def te du du loolu mooy que xam nga les les médecins et les infirmiers les dire les les acteurs de la médecine moderne. ci mhm. les cliniciens modernes dañu nekk si dans un cadre légal. Mhm. dañu nekk si ñu nekk ñu si dans un cadre légal. nous avons une reconnaissance populaire de la population mais dafa am ah, ah, amuñu reconnaissance officielle. ñun ne amuñu bi nekk ak ñoom cadre bi nag bokk na si di di parce que dafa am ay ay ñu war a respecter ñoom. Mm-hmm. parce que ñoo le médecin mën te prescrire un médicament traditionnel mën ta joxe un médicament bu nekk si structure di faj. mënu jël ma garabu taat si sama garabu jël beneen taat di ko jox di ko di ko di ko di ko di ko passé mënu ko. lu tax parce que dafay rek day respecté norme fii si cadre bi mu nekk cadre légal bi nekk parce que garab ba muy jox taat euh, ba muy jox patient garab bi jóge si taat patient bi mu koy jox patient bi mun amul benn base boo xam ne bu ko sécuriser ne ko mën na ko jox patient. Mm-hmm. te boobaa lu ko si jot moom mooy jox mooy jël responsabilité mooy am responsabilité loo tax ñoom ñu am côté boobu côté résistance mais. loo tax aussi ñoom du ñu mën a référer un patient si ñun parce que duñu xam lañ leen dañ leen dañ leen dañ leen jox parce que si cadre illégal lañ nekk loolu bokk na si aussi li nga xam mooy frein bi si collaboration si côté côté boobu ah léegi pour dund woon pour dund woon barrage boobu il comme ni ma la ko wax léegi ñu réglementer la médecine ñu nekk dans un cadre légal bu nekkoon dans un cadre nga xam ne man garab bi may defar ah dañ koy réglementer bala maa joxe garab bala moo liggéey garab di ko jox patient ma ah, ko fi samay dossier jox ko ba ba ñi nga xam ne les services institutions nga xam ne ñoom ñooy ñooy xool saytu garab bi ñoo koy ñoo koy délivrer. Mm. léegi kii tam xool ko cay ko ba ne ak ah, garabu papalaay bi de baax na mën nañu ko joxe patient boobaa donc bi dina mën a jël garabu traditionnel bi joxe ko un patient. Mm-hmm. mais actuellement mën nañu mën nañu référer un patient mais dans le cadre privé ah, médecin bi ñëw na am na benn xayta mu ne xam naa ne euh, sa kii bi am naa sama benn waay boo xam ne fajkatu ci saan la naa la boole moom boo demee ne def ni ko médecin docteur yi mën nañ ko def mm-hmm. mën nañ seen doom mën naa feebar ñoom yóbbu ko fa ñoom mën seen seet lu mu baax baax baax lu ko gëm-gëm li ko société bëgg bëgg bëgg bi leen tënk mooy ko duñ ko duñ ko mën a duñ ko mën a nangu mm-hmm. mais buñ toogee ay nit la Sénégal lañu am nañ ay tradition gëm nañu suñu culture dañuy faju faju cosaan dañuy jëf seen doom yi seen jabar yëpp dañuy faju cosaan mm-hmm. mais nag si cadre bi ñu nekk du leen permettre ñu sol seen blouse permettre leen ñu ñuy collaborer si cadre boobu wala ñu am lu ñuy gëm nangu si fan mm-hmm. parce que yàlla problème de dosage yàlla loolu tax ma wax ne ne il faut ñu réglementer médecine traditionnelle. Mm-hmm. pour mën a pour pour loolu li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy ragal cosaan loolu mën a deñ. foog ñu réglementer ko infiltration boobu nga wax dafa yàq lu bëri day day yàq suñu crédibilité secteur waaw ko ak ñu xamuñu dara ak publicité la ñuy defar loolu nag dañu war a loolu nag ñu nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi dañ si war a xeex dañ si war a taxaw seen taxawaay yéen ñi nga xamante ne yéen a yëngu ci wàllu woowu ndax yaakaaruma na keneen ku bokkul ci seen ci seen ci seen milieu bi mun na porter seen combat yéen à votre niveau réglementation bi certes moom mooy yoon mais tey jii nii comme que amaguñu prérogative pour réglementer le secteur de la médecine traditionnelle yéen les acteurs les praticiens euh, lan moo war a nekk si seen seen taxawaay. suñu taxawaay mooy leen li si war nekk suñu taxawaay dina jafe pour mën a dindi loolu dina jafe état rek moo ko man état rek ndox li dëgg état moo ko mën li ñu mën xam naa li ñu mën mooy dénonciation. dénonciation dénonciation lañ dénonciation parce que ay calomnie si si si si si ay faj ay fajkat cosaan. Mhm. dénonciation rek la ñu mën a def mais du ñun ñooy ñooy ñooy sanctionné du ñun ñooy jàpp ñuy def dénonciation ñu mën daanoo rang ñuy dénoncier. daanoo naa loolu lañ man bu ñu loolu mënuñu parce que état moom moo état moo moo am. prérogative prérogative boobu. Mhm. pour def ko mais ñun mënuñu ko. nañ organiser li ñu def li ñu mën waaw mais buñ da ngay gisee fajkatu cosaan nga xam ne kii li muy def ci tegu si ay ay ay ay pour pour jaay ko mais des fois sax ils vont un peu plus loin que ça même ñi nga xamante ne dañ leen di duppee les féticheurs dañ leen di introduire euh, ci ñi nga xamante ne mooy les les les tradipraticiens donc du coup euh, comme ni nga ko waxee léegi seen crédibilité bi bëri nañu gaa sont ils sont partout partout partout mais loolu aussi dafay remettre en cause seen crédibilité kan mooy féticheur kan mooy tradi traditionnel euh, kan mooy def magie noire donc c'est on peut dire que euh, c'est un fourre-tout lépp futu la parce que médianisation dafa dafa jaar. Mhm. am na ñuy jëfandikoo yi am na ñoo xam ne ay jat la ñuy jëfandikoo am xam ay béjjén la yore ay yoo xam ne dafa bëri ay si médianisation dafa bëri xam-xam boobu dafa wute. Mhm. mais ku nekk dañ koy dañ koy dañ koy utiliser. à des fins à des faits ba nga xam ne am na ñoo xam ne dañ siy dóor comme ñoom wax dañ siy ay nit. dañ siy dóor mm-hmm. marto te te pour xam ah, xaalis rek ma si tax xaalis lañ si jublu. mais enjeu enjeu financier bi la euh, moo si jublu même ñuy defar jaay garab yi aussi sax man noonu la enjeu financier bi léegi ñëpp gis si mbedd yi si koñ yi jigéen yoo xam ne yore seen paan def si ay garab di jaay tout cela y la l'enjeu y a l'aspect financier bi si mm-hmm. nekk de ce aussi day indi impact sur sur si euh, euh, environnement bi. parce que les, les plantes commencent à, à, euh, à, disparaître il y a une surexploitation des, des plantes médicales actuellement bon dafa amul beneen benn pexe bu ñu war def pour pour euh, préserver ko préserver ko gën ko gën ko améliorer aussi am amul pexe mm-hmm. de ce boo xam ne daal lu jar a xoolaat la Euh, soxna Fatou lu jar a xoolaat la seet euh, parce que li si nekk si ay ay yàqute li si nekk si ay ay danger dafa bëri. Mhm. dafa bëri en tant qu'acteur man xam naa ne li si nekk si ay danger dafa bëri parce que nit ñi tamit fi ne xamatuñu jëm fu ñu jëm faju saan bi rek la ñuy jëm ah da ngay seet période nii fi nekk nii lu nekk la ñuy utiliser nekk nii waaw mhm. ah, ku nekk si recette. waaw ñëpp ñu jógee ay recettes def mais. justement par rapport à ça di nga gis euh, kenn koo xamante ne dafa nekk ci ci ci wàllu woowu c'est pas pour les discréditer ah parce que ku nekk ci ñoom xëy nga am nga sa compétence ak sa sa expérience ku nekk ci ñoom am na lu la yàlla may mais da ngay gis kenn koo xamante ne il se targue di wax ko day faj. ay ay ay ay ay jàngoro yu bëri bëri bëri des fois li mu li mu nombre de jàngoro bi sax yow mi ko yow mi koy dégg sax su fekkente ne da nga am un peu bon sens on est des africains gëm nañ ko mais su fekkente ne da nga am un peu de bon sens rek la logique voudrait que di nga poser wu la question à savoir mais kii comment est-ce qu'il peut faire pour soigner cinquante mille maladies alors que moom benn benn benn nit la xam nga loolu sax euh, dañ koy wax nañ ko am na si loo xam ne mën naa nekk am na si loo xam ne mën naa nekk man nga faj ba fukki feebar sax mën naa nekk mais dafa am foo xam bu fa yegg ëpp day ëpp. ëpp doole day nekk foo xam ne lu rek nga mën day daal day mm. parce que xam-xamu cosaan euh, nit ki dafa am su fa am limite fu mu daan yem maanaam ni ma la ko mën a expliquer man damay damay nekk fajkat. ma spécial su benn domaine. Mhm. soit man am naa xam-xamu faj ci ndoxu siti. waaw am naa faju xam-xamu ndoxu euh, faju asma. mais jamono day dox jamono dox ma jox ma dajeeg soxna Fatou moom am na xam-xamu faj hémorroïde am na xam-xamu aussi euh, fa fa fa faj tuberculose. Mhm. mais ñun ñaar bu ñu tasee di boromi xam-xam nga bëgg yokk nga bëgg man a faj asma bëgg a maj ndoxu siti bi ma am yow te man ma bëgg a mën a faj tuberculose bëgg a mën a faj itamati ah il faut ñu ñu def échange mag ñu jëkk ñeen dañ naan def mhm. dañ naan toog si ay borom xam-xam ñu toog dugg si biir néeg dem sa pénc ma wéet ñoom ñaar ñu joxante ay xam-xam ñaar ya nga yoroon nga jox ma say ñaar ma dolli ko sa ñaam yor mu yore ñeent jàngoro yu ma mën faj yow ñaar nga yoroon ma joxaat yeneen ñaar mu ñeent nga dem si keneen dem si da ngay bujj yore ay xam-xam si feebar yu bëri loolu dafa amoon biir si biir mm-hmm. xam-xam lañ ko daan defee. mu wóor na si xam-xam nga ko teg kon lam la jox si xam-xam la la ko teg parce que lu lu wér la lu wér la euh, wala ilaa nga dem sa benn koo xam ne dafa am xam-xam. nga am lu mu yore si benn xam-xam bu mu yore te yow amoo ko nga dem sa moom tarbiyu ko. man de damaa bëgg di si xam-xam toog moom nekk fa weer nekk fa at yaa xam diir ba nga fay nekk. ba nga mu jox la xam-xam booba. Mhm. xam na ko yokk sa la nga amoon. kon de sa fekkee léegi yow say xam-xam dafa daal day day bëri si wàll gu nekk loolu mën naa nekk. Mhm. man lii man lii man lii lu mën a nekk la mën na nekk la. mais day fekk ne la nga nekk na wér. te nga sell ko te ragal si yàlla. mu mu certifié xam-xam fi xam-xam loolu mooy xam-xam cosaan mu wóor na yow lañ la jox xam-xam cosaan la xam nga xam-xamu cosaan bokkut ak xam-xamu plante di utiliser plante yi. dañ koy war def différence. Mm-hmm. l'utilisation des plantes et le savoir dafa dafa comme ni ma la si commencement bi savoir tas mooy xam-xam bi fi maam bàyyi woon. mu bàyyi la ko yow soxna Fatou. wax ne lañ koy nii lañ koy nii lañ koy nii lañ koy defaree nii lañ koy defaree nii lañ koy def ba nga mën ko doomu aadama. muy xam-xam boo xam ne moom it ko am fu mu ko jël di mu def ay expérience dans le temps. ah. yu doon yu porter ses fruits. yu porter ses fruits. Mm-hmm. nga yore ko kooku mooy xam-xamu cosaan. bokkut ak nag ki nga xam ne dañu la ngeer baax na wala ñu leen goloñ bi baax na. Mm-hmm. nga jël jëm jëli ko ne def nga def ak sa garab ne ne xam-xamu cosaan la loolu du xam-xamu cosaan. Mm-hmm. li nga xam ne moom la ndëppkat yi di def xam-xamu cosaan la parce que ñi def ndëpp actuellement du ñoom ñoo ko créé. dañ ko créé bàyyi leen ko duñ ko yokk duñ ko wàññi. ñuy continuer rek. ñuy continuer kon la ñuy continuer la ñuy continuer loo sa yokk ak loo sa wàññi rek. day feeñ day day day parce que si yow si yow yaa yaa ko li ma yore créé ma ko papa ma ko yokk du ko wàññi loolu mooy xam-xam ci sax mm-hmm. mais nag nag di documenté wu fii jël fii defal say composition bopp ah, jël fii jël fii ne ne kii day faj ngeer kii kii day faj saqat kii day faj day faj yaramu tàng. nga jël boole ko te amul baase xam-xam. amul benn notion scientifique. scientifique ak benn base beneen xam-xam bu dul scientifique. Mhm. sa xel mu neex rek nga utile nga jël boole rek ne yor na war naa mën a baax si lii donc c'est un danger loolu la. Mhm. loolu tax problème mu xam euh, faj bu bëri mën naa nekk mais nag am na yenn faj bu bëri yoo xam ne lu nekk di nga mën ko faj ah day ëpp doole parce que ça ça dépend parce que tey yow foo jëlee sax garab ya produit ngay fajee publicité bi nga def nit ñi di ñëw bëri sa kër fees sa kër gi foo jëlee garab boo leen di jox ça pose problème ah. Euh, euh, Abdoulaye Ndao ah journée africaine euh, de la médecine traditionnelle wax nga ko sànq te ñu koy màggal le 31 août bu jot ñu bëggoon ñu def ci benn document bu ñu daal di intitulé pharmacopée des plantes médicinales defe naa dëkk yu bëri adhéré woon nañu ci ci ci ci li nu mel tey jii nii ndax sur le plan national lan nga ñu ci mën a wax ci ci ci document bu nu mel élaboré ngoon ko wala où est-ce que vous en êtes waa xam nga euh, kii am na lu far document de kii ngay wax je pense que li nga xam ne élaboré au niveau de la de la sous-région. de la la pharmacopée africaine. Euh, la pharmacopée de la euh, ouest africaine. Mhm. dans l'espace de la CEDEAO. boo boo xam ne l'OAS l'organisation ouest africaine de la santé moo ko moo avec les ses ñoo gëstu. élaborer ce document cette pharmacopée-là pour que euh, les pays de la sous-région mën a sukkandiku si si si pharmacopée boobu mën a produire des médic moo nekkoon l'objectif. Mm-hmm. Sénégal aussi on est en de faire une pharmacopée de Sénégal. je pense bien que. Euh, élaboré ñu ngi si je pense bien xam naa ne pare mais pharmaco Sénégal dafa a am aussi mais actuellement ce qui existe mais y a la pharmaco ouest africaine boo xam suñu document de référence pour que pays yi mën si sukkandiku dans la politique de de production des médicaments traditionnels américains so so so soit une réalité. Mhm. une réalité loolu tax moo defoon euh, ñu defoon ko. Euh, am na am na loo wax lu am solo doyen da nga ko wax sax jamono ji ñu toll muy la pandémie de Covid 19 wax nañ premier vague wax nañ deuxième vague ba jamono ji daanaka troisième vague bi sax muy virus delta bi li muy li muy faat daanaka mun nañ ne jéggi dayo mu mel ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu médecine traditionnelle bi jamono ji dañu dañu dañu dañu gën a dañu gën a bëri affichage yaa ngi fi publicité yaa ngi fi ku ci nekk ci ñoom yaa ngi fëgg sa dënn di defal ay potion magique si je peux ainsi tey jii yow lu ni la euh, jamono doy dox certainement na nan nga ko xalaatee en tant que ku nekk ci milieu bi def ci ay at. waaw gis xam nga fi mu nekk nii mos naa ko wax. Mhm. wax naa ne dama wax ne bi bi fii pandémie bi duggee yaakaar sama yenn sortie yi. Mhm. am na si yu ma ko waxee. Mhm. ñu laaj ma ñun suñu. suñu taxawaay euh, si si si si feebar bi moo wax ne ñun suñu taxawaay ñaari ñaari ñaar lañ ñaari taxawaay lañ si mën am rek dans la prévention aussi dans le curatif su ma parler curatif maa ngi wax si médicament yi nga xam ne moom ñu war a joxe médicament tay sax moom la ñu war a joxe askan wi di ko jëfandikoo pour mën see soulager si feebar bi mhm. beneen bi mooy prévention jàppale comme nit ñi comme ni ñu ko waxee ni ko imam yi defee ni ko communicateur traditionnel defee ñëpp wax pour les gestes barrières loolu moom moom si lañ a a wax prévention bi si lañ mën a mm-hmm. tant que euh, en tant que état en tant que autorité mm-hmm. loolu lañ a def dans mm-hmm. que da di feebar bu bees te feebar bu bees bu ñëwee bon damay wax ne kenn fajkat bu yoree garab mën naa woon mën naa fekkee ne nekk si moom mën naa wax ne sama yaakaar naa ne war naa mën a faj la war a mën a faj yaakaar naa ne war naa mën a faj fee feebar bi parce que musu ko feebar bi musu fee nekkoon ba nga xam ne ba xool nañu ko patient ba mu gis résultat am foofu la ñu war a déggee waaw feebar dafiy nekk sa garab nga jox ko nit mu am si gis tànn nga joxaat ko mu am si tam jox tool kon feebar bu dellu si waatee wala mu nekkoon fi tamit wala mu ñëwaat mu nekk demoon fi dem ñëwaat. garab boobu mën nga wax ni fajoon na si ay nit kon kii mën a wax ne a fajoo mais ak feebar xam dafa bees la sa garab mosoo mosoo koo kon li nga mën a wax rek nga yaakaar naa ne war naa mën a faj ngeen. si base si base boobu rek la ñuy la demee. si base boobu la ñuy demee mm-hmm. jusqu'à la jox ko ni mu mu mu mu utiliser ko mu wér. su ko joxee ni mu utiliser mu wér nag bu baax wax ne sama garab jox ko keneen jox ko keneen jox ko keneen li nga wax ne sama garab bi day faj corona. Mm-hmm. mais bu dul loolu da am yaakaar rek. dañoo war naa mën a faj it parce que nii la wax nii lañ la wax ne moom la feebar bi di di manifesté woo nii lay manifesté woo manifesté te garab bi mu yore ni day nii manifestation yi da koy faj manifestation yi da koy manifesté nga jàpp ne war na koo mën a faj foofu loolu mooy si mais li si amoon solo mooy que ne pour war a mën a jëriñ añ bi feebar bi ñëwee état bi dafa war na orienté wu maintenant si gëstu garab yi nga xam ne si xam-xam yi xam moom la fajkat yore ba ne xam-xam bi nga xam ne moom la moo fi nekk mm-hmm. si wàllu faj cosaan waa ilaa si plante yi nga xam ne ñooy gas nekk Sénégal ñu gëstu si seet ndax nañ si war a mën a trouver loo xam ne di war a mën a indi eh, li saafara corona bi loolu lañ deful te je pense que suñ ko defoon man gëm naa ne dañ trouvé loo xam ne dina mën a andi eh, saafara si feebar gëm naa ko parce que yàlla tamati feebar bu ñëw si rek am na lu ko faje bu si ñuy pensé wu gëstu rek dañ man dañ mën a trouvé mais defuñu ko de si fekk nag dafa am benn vide bu ñu bàyyi fajkat yi daf la daf la exploité ko ku nekk di seet foo mën a su trouver loola loola loola dimbali si feebar si feebar bi. fa feebar ak loolay may ak lu tax loo tax góor lañ beeg mbante dégg fi mu nekk bu ngay fi sax di koy dégg di njeer lu nekk. nekk yi waaw xorompol bi ñëpp def seen i seen i seen i poison def i milaaj wax ah. kenn ku génn fa normal parce que dañu xamatul fu ñu jëm xamatuñu lu ñuy def ah, ñu wutul su fekkoon ne état bi orienté woon bi bi mbas mi ñëwee rek. ñu sóobu si laboratoire yi chercheurs scientifiques sóobu si laboratoire yi xool li nga xam ne moo fi existé woon si ay garab te ñu defuñ si ay gëstu. Mm-hmm. Euh, bi ñu sóobu bi woo fajkati sax la ñu yore am si ñu ñëw gëstu ko sóobu ndoog si yaakaar bi ñu ko defoon a jox askan wi ñu ñu sol man gëm naa loolu ni ñu ko mën a mm-hmm. defuñu loolu mm-hmm. bu ñu deful loolu nag ah nit ñi def li ñu xam nit ñi jéem a sa lañu fa ñu toll ak sa lañu mën ak ci ak la ñu gëm du am benn benn organisation du benn am benn assurance ku nekk def li ngay def rek ku li nga siy trouvé yaa xam boo wéree nga xam yaa boo si amee gàllankoor yaa c'est ça foofu lañ toll mm-hmm. mais état la ñuy war a imputer. Euh, responsabilité responsabilité responsabilité mm-hmm. boobu. te waroon na ko mën a ko mën a def. Mm-hmm. waaw ñu ñu daal di tëjee ci li nga xamante ne moom moo di li lien dafa mel ni dañu am impression que lu ci bëri ci seen temps yi dangeen koy farataal di nekk ci seen ci seen cabinet yi ku nekk ci yéen am nga am nga cabinet comme ñu ko gisee ci wàllu clinique yi wala hôpital yi alors que certainement war ngeen gën a mën a participer si li ñuy duppee effort bi ngeen war a def jëm ci wàllum santé publique foofu tamit lan nga ñu ci mën a wax. waaw xam nga comme li ma la ko waxoon rek. comme ni ma la ko waxoon. bon suñu as bi yàgg nañu à participer si les questions de santé publique. Mhm. Euh, dañu collaborer dans les si si yenn yenn yenn yenn activités yi xam ne ministère daan def dans le cadre de la prévention dans le cadre de euh, la santé communautaire. dañ koy def parce que nous avons des, des des entités dans les régions des gens qui travaillent avec les régions médicales qui travaillent avec les districts donc si wàllu boobu dañ koy def a notre à notre niveau si problème de santé publique nekkuñu si ku nekk individuellement ku nekk da ngay nekk sa cabine mais fekkee ne ministère dafa jóg pour liggéey la fédération day jóg. ànd ak moom la su dee ànd ak moom de ànd ak moom si li ñu war a def ñu def ko ñu toll ma lañ tolloon. te mën ko def ñu def ko. Mm-hmm. waaw liñ toll te mënuñu ko def ñu ko def. liñ toll mën nañ ko def loolu euh, dañ koy dañ koy liggéey. dañ si liggéey pendant des années ah. pendant seen maladie fi jaar yëpp polio méningite sida tout cela dañ si ànd ak ñoom di si def liñ si war def mais si def boobu si dans le cadre de la prévention c'est toujours dans le cadre de la sensibilisation et de la communication. si foofu la ñuy toll ak ak ak ñoom. Mm-hmm. Euh, bàyyiwuñu nag ñu ngi si mais xam nga rek comme ni ma la ko waxee euh, une implication bi ñu war a impliqué bi ñu de passé si si si processus yi dañ ko dul dañ ko dul dañ ko dañ ko dul def mhm. waaw sa am na fu ma ko mun sa waxtaan parce que pour que mun ñu jouer suñu rôle pleinement il faut que euh, ñi impliqué dans dans dans dans de décision au niveau opérationnel mhm. parce que si au niveau central au niveau central si si si décision yi jël si si si yi ñuy def et tout cela dañ ko da ci war a impliquer l'état l'état du passé pour ñu wax te loolu bu sax il fallait que que le projet de loi que la que la document de pratique soit appliqué comme ni ma la ko waxee rek il faut que ñu ñu a former l'état du passé renforcer les capacités ah dans les comme ni ma ko waxee si kii les paquets de si prévention bi gën a day gën a am solo mhm. mais euh, li ñu mën a def rek ñu ngi koy def mhm. waaw ñu koy mën a def bon dafa am benn xam loo xam ne dafa am si médecine traditionnelle au niveau de Ndara c'est que la médecine traditionnelle autorité yi suñu préoccupation. bokkul seen préoccupation seen préoccupation. Mhm. jëluñu ko en considération waaw en considération mu nekk seen préoccupation si nekk une priorité boo xam ne wañ ko def defuñu ko. Mhm. ah kon nag état bi rek mën a toll état bi la mën a toll li ñu mën a def dañ koy def parce que ils sont de le faire parce que ay signataires lañu si yenn yenn yenn kii internationalisé ci yooyu ay sa yoo xam ne nga xam ne ñoo ay ay yoo xam ne ay daf si d' accord cadre il faut que ñu def lu wane nañ waaw waaw ñu ngi def li nga xam ne wane nañu ah ñu ngi si kat ñu ngi si mais ñu ngi si ñu ngi si boo xam ne di nga si farlu di ngeen si gaaw nee naa trente ans quarante ans ñu ngi si mm-hmm. di daw kon ça veut di seen préoccupation mm-hmm. fekkoon seen préoccupation je pense que kenn li ñu si travaillé par exemple le document AEM li ñu si travaillé dafa yàgg pour l'autorisation du ministère du marché des médicaments traditionnels année dossiers yi dossier des dossiers allégés a defar mën a defar ko dossier yëpp ay textes yoo xam ne mi ngi fi yoo xam ne dañ ko waroon liggéey bu yàgg mais amul benn garab boo xam ne fi nekk nii actuellement au Sénégal mën nañu wax ne c'est issu de xam ne Sénégal moo ko liggéey te Sénégal dafa toll nag dañu war a toll foo xam ne dañu war a liggéey suñu garab bi Mhm. yu si suñu xam-xamu bopp. foofu lañ toll. éviter jéggaane bi. jéggaane bi bu ñuy dépendant au lieu de mais Fatou est que est-ce que d'accord nga. et puis man damay poser question boobu. Mhm. de tout temps bi feebar bi ñëwee damay poser question boobu pour trouver une solution. Mhm. pourquoi ñu penché wu si vaccin vaccin vaccin vaccin si prévention bi. Uh-huh. gel gel gel gel gel masque ah distanciation foofu lañ toll mu mel ni amatuñu beneen statu yi beneen pexe boo xam ne si lañu war a mën a aaree si lañu war a mën a faji amul loolu moo fi nekk mais pourquoi xalaate ñu tamati ñoom les chercheurs scientifiques soit mu nekk Sénégal soit mu nekk seen li nga xam ne ñoo créé vaccin yi uh-huh. Euh, pourquoi xalaat ni ñu xalaatee ay vaccin lu tax xalaatuñu ko ay médicament yu mën a faj corona bi lu tax xalaatuñu loolu. Mhm. ni ñuy xalaatee vaccin dugg seen laboratoire yi di gëstu ay vaccin lu tax dugg ñu seen laboratoire di ay garab yu koy faj. Mhm. en même temps. Mhm. lu la ñu def si prévention bi rek à part garab yi xam ñoo fi nekkoon. déggoo fi nekk ñu ne génn nañ garab boo xam ne pour faj corona bi part garab yi fi nekkoon. waaw ah, pourquoi léegi ñoom mënuñu def loolu dañoo am amuñu wa ilaa lii moo gën a yomb li li dama lay posé question bi muy posé man dama jaaxal ba tey pourquoi penché wuñu parallèlement à créer à faire créer à créer mm-hmm. yu mën a faj parce que kuy prévenir aussi da ngay faj am na yu feebar mm-hmm. ñiy feebar dañu leen war a jox garab ñu faju loolu garab yi fi nekkoon rek question bu dafa koy posé mm-hmm. day posé question boobu amaguma si tontu la <laughs> dama bëgg na ngeen posé question boobu pourquoi pourquoi aussi Sénégal aussi pourquoi Sénégal aussi ñu topp rek benn affaire bi muy gel euh, distanciation. masque masque vaccin te seet ñu yeneen pexe. bu dul yooyu yoo xam ne ay yeneen stratégie yoo xam ne mën nañoo indi si prévention te pourtant am na fi. ah si le khalife général de des Mourides lu mu def. pexe la. si wàllu diine si wàllu gëm-gëm. pexe la waxal. Mhm. gëm-gëm. du jeex ah. man sa pexe du jeex. te pexe du jeex ñu war ay xefe ak ñaan suñu borom pour mu génne ko fi. Mhm. mais am na yeneen yeneen yeneen yoo xam ne dañ ko war a dañ ko war a dañ ko dañ ko war a dañ si war a liggéey travailler si. Mhm. mettre ko en valeur pour mettre en valeur génne yeneen i pexe bu dul lii. Mhm. parce que lii ñu ngi fi rek ñu koy def ba léegi te yow fi jëfee ko fi. mu ngi bëgg a yàgg de. te ku yeewoo Sénégal ku juddoo Sénégal léegi gel dugg na sa nopp bi. ak raxas. raxas dugg na sa nopp bi masque dugg na sa bopp bi. li si des mooy ko jëfe bi. xaw ma difficile mais kay xam nañ ko ba pare. c'est ancré. c'est ancré mais jëfe ba jëfe bi moo def problème est-ce que ñu ko jëfe bi sax mais Europe ñoo gën a mën a jëfe te feebar baa mais pourquoi ñu mënuñoo génne suñu pexe bopp man ça va poser question. d'accord te war naa a nekk mhm. fi borom xam-xam scientifique yaa ngi fi. borom ne seen xel dafa neex sax di màcc sax jaakaar naa ne ñu ngi fi ñoo xam nañu mën a génne yeneen i pexe stratégie de prévention. Mhm. pour lii fi nekk. man loolu laa gëm. d'accord. Mmh. état bu tolloo réew mi la war a génne seen pexe bopp mais pexe bi nga xam moom lañ seen àddina bépp def te ñoo avancer si lenn dañ génn war yenn pexe boole ko lii. Mmh. Euh, ñu ñu ñu ñu njoxtu ne wala ñu yaakaar ne. Mmh. ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a dégg kàddu yooyu dinañ ci ci dinañ dinañ dinañ dinañ ko dinañ ko dégg ah. waxtaan wi am na solo waaye dafa mel ni ah, li ñu lu ñu xanaa nga nga nga daal di tëje foofu alors. damay tëjee fenn. foo xam ne il faut ma il faut ma wax ko parce que. sama tolluwaay si réew mi am na au moins jiite naa. Mhm. une fédération. Mhm. nit ñi dañuy si ñëw si man nga xam ne ma am naa sama xalaat aussi dama si réew mi loo xam ne tamit xalaat aussi. mooy que fi ñu toll nii dama jàpp ne man li may recevoir si ay patients chaque jour boo seetloo cent dix pour cent yëpp ñu si bëri bu ñëwee yaramu tàng lañ may wax. Mhm. damaa sibiru sama dafa tàng. damay saqat damay def ni mu mel ne ne dafay noonu dañoo grippe wala dañoo pali cent ma jàpp ne tey jii fi ñu toll si prévention war nañu war nañu war nañu état yi war naa décentraliser les moyens yi mu yore. wàcce ko si les postes de santé et les structures de santé. les moyens

dañoo dañoo dañoo ah dañoo seet grippe dañuy wax ne grippe nee na grippe corona la te dañoo grippe dañ ko amoon avant ñu yegg sans sax te seet nañ ne tey jii fekkoon ne état bi dafa jël le moyen yu bàyyi ko su mënte sax def gratuité la prise en charge au niveau des postes santé sax ñu wàññi ko. d'accord de ce fait que boole ko une communication nag médiatique wax ne képp koo xam ne sa yaram dafa tàng. képp ko xam ne da ngaa yëg ne da ngaa soj wala da ngaa def nii da ngaa def nii def nii lu nuroog ay ay manifestation bi dawal ne lagg sa poste santé ba la gën a jege ñu defal lañ fa war a defar defa incha allah yàlla ma naa def nga génn si loolu bu ñu ko communiqué noonu mm-hmm. mu wóor na boo fa déggee ni nga fekk ñu defal la supervision defal la say kare defal la def la emplissage ah je pense que bala mu yegg cas grave ñu wax ay oxygène di wax ay lal dans les centres dans les centres si si si CTE ñu koy CTE yi yaakaar naa ne ay cas yu bëri nañ ko régler à la base. d'accord man loolu man loolu loolu laa gëm. d'accord waaye na nga xam ne noonu lañ daan defee avant corona bi ñëw di faje au niveau des passages noonu lañ koy defee amul changement. Mm-hmm. li si amul changement. dañ daan faje nit ñi parce que noonu la ñuy faje ñi dañ daan mais en temps de pandémie nag dafa am lu war dañ ko war a wàcceel population bi mm-hmm. yombalal leen ko l' accessibilité financière l' accessibilité géographique si cas de pandémie loolu dafa war a nekk mm-hmm. Mm-hmm. wax nañu commissaire boo xam dañuy ñimee ne bu si bu di daw pour dem def faji ni parce que ñu bëri ñu ngi naan ñu ngi faju di wér te yegguñu fa mais am na cas yoo xam ne buñ ko traîner di ko traîner day dégénérer day dégénérer yàgg bu yàggee pare ñu yóbbu nag si centre yu mag yi nag ñu naan oxygène amul rek fekk ne cas dafa grave. <laughs> loolu euh, soxna si war nañ ko war nañ ko si bàyyi xel ñu ngi sant di leen gërëm. di di nuyu auditeur euh, Rewmi FM yeeg auditrices yëpp. Mm-hmm. Euh, personnel bi nekk fi si rajo bi yëpp ñaanal jàmm. Mm-hmm. Euh, yàlla sàmm leen sàmm seen. si mm-hmm. seen seen njaboot. ñaan suñu borom li nga xam ne mooy feebar bi yàlla jële ko fi mën na ko. yàlla nañ ko suñu borom defal. leen jaajëfal soxna <laughs> jaajëfal ko moom bu baax a baax waxtaan wi am na solo trop ma fàttali ne yéen a ngi den déglu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé amoon gan bu mag a mag bi di doyen Abdoulaye Ndao euh, doyen Abdoulaye Ndao nag nekk président d'honneur bu fédération sénégalaise des des praticiens de la médecine euh, traditionnelle ma fàttali ne SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon